di wax all brothers and sisters asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di jiital ci nuyoo bi kilifa yi fi teew bu ñu waxee Cherif Mouhamadul Amin rek wax nañu ñëpp. léeg <laughs> ok. Mm-hmm. di nuyu kilifa yi fi teew yëpp di rafetlu kàddu yi nga xam ne ñoo fi jot a jaar ci ay kàddu mu mel ne itam euh, dégg nañ gis nañu présentation bi fi am macha allah muy lu am solo foofu it liñ fi fàttali rek mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon newoon na la yadxulanna hada al amr ma balaxa al layl wa nahaar muy diine lislaam fu nit mën nekk ci àdduna ak béréb bu mu man di doon du bàyyi fenn te dugg fa moom diine lislaam kon lu ñu ko xeex xeex rek diine lislaam dana àgg fépp ci àdduna loolu moo waral mu tasaaroo nii nga xam ne noonu la tasaaroo imaam alhamdulillah salatu wassalamu ala ashrafil mursalin rasulillah first of all, and he is um, praising the brother, the beloved brother Hisham, for his beautiful presentation. And he said, um, this is a confirmation of what the Prophet ﷺ said, that this deed will enter and reach anywhere that late and nahar, which is night and day, reaches. Whoever wants it, wants it. Whoever dislikes it, dislikes it. But that's the fact, uh, as the Prophet ﷺ said so. Exactly. Euh, jërë ngeen jëf euh, ci mbokk yi xanaa di sant suñu mbokk euh, suñu xarit Imam Mountakha Sakho ci liggéey bu bii nga xam ne mi ngi koy def ànd ko ak mboolem waa Staten Island ak waa New York fu ñu man di nekk muy liggéeyal diine Imam Mountakha Sakho nit la koo xam ne dafa sosoo ci diine ak jaamu yàlla waaye itam ñu xam ko ci yitte ju mat sëkk ci liggéeyal diine lislaam kon defe naa ku mel noonu fu ñu ko fekk war nañ ko dimbale war nañ koo jàppale ndax dimbale ko mooy dimbale diine yitteem yëpp it moo di liggéeyal lislaam liggéeyal lislaam ak dimbale diine te dafa war ci jullit ñi fu waay mën a nekk te di jullit ngay dimbale diine moom nag loolu kon mi ngi ci li yàlla ne woon wal takun minkum ummatun yad'una ila al xayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha anil munkar moom mi ngi ci woon ci loolu kon alhamdulillah euh, ñi ngi lay sant bu baax <laughs> okay <laughs> that's about him a good man he's a great guy who helped the deen a lot so we supposed to help him also you know we are here today for something for helping our deen but for help our community to do something for this place. So today, tonight, this is a fundraising night. Uh, we hope each of us gonna pledge something to help this place. mbokk yi kon loolu moo ñu fi bàyyi tey mooy li nga xam ne moo ñu fi dajale muy lan taxaw diine comme niñ ko waxee sëñ Muntaxa xam nañ ne kuy taxaw diine la kon ab jullit bokk na ci warteefam mu jàppale diine. béréb bu mel nii tey li ko tax a jóg mooy defar nit defar xale jaamu yàlla ak yu mel noonu ànd ko communauté bi nga xam ne moom la ko àndal yépp kon tey li ñu soxla moo di kenn ku nekk génn ci aw ñaqam loo xam ne mooy doon li mu tànn ci xolom man koo def ci béréb bi ngir ñu man ko yàqlee béréb bi waaye itam ay soppat yoo xam ne dana doon centre culturel boo xamante ne bii lépp dafiy nekk lu ñu soxla woo dafiy nekk diine ca kanam la war a jëm kon loolu mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne moo ñu fi boole xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa ne woon na ballighu anni fu ngeen mën a nekk di leen jotal di yaatal te ñun ñëpp ay jullit la kon li nu war mooy iblaax muy jotal jotal gi nag béréb bu mel nii ci la bokk ngir ñu man fii tase di fi man di jàngal xale yi seen diine di fi mën a yar suñu doom yi ak suñu jarbaat yi kon nun ñëpp ñu xam ne loolu mooy li nga xam ne moo ñu fi bàyyi waaye lu tax ñuy du ñuy joxe sunu alal li ñuy tuddee al infaq fi sabilillah al infaq mooy joxe sa alal muy give for charity why we give for charity because we need something we wanna make our uh, accounting bank full in aljanna so loolu moo tax ñuy def li nga xam ne moo di fundraising di joxe si xaalis muy sa alal muy dundale ci yoonu yàlla yàlla subhaanahu wa taala nee na wa man ahsanu qawlan mimman daa ila llahi wa amila saalihan kon bu fekkente ne ñoom dañoo nekk fii taxawal lu mel nii di yaatal diine ji dugal ci ñi nga xam ne nattab li ay jullit ay nit ñu bari tuube nañu fi te loolu li muy tekki mooy yaa ngi taxaw ci woote ci diine kon nu itam sunu wàll mooy jàpp ci loolu loolu mooy li nga xam ne mooy sunu wàll euh, bu fekkee. macha allah I don't think he needs translation because himself is speaking he's very beautiful English maybe even better than my English. So alhamdulillah he um, said that because of what we have come here for this cause this masjid this place this Islamic community this Muslim center we, inshallah, tabaraka wa ta'ala, are inviting every one of us to pledge and support whatever that Allah tabaraka wa ta'ala make them um, feel comfortable And he says that our work is to take the message of the Prophet ﷺ and transmit it because the Prophet ﷺ said, بلغوا عني ولو آية transmit from me even if you know an ayah from me and he said Allah تبارك وتعالى in Surah Fussilat said ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين who is better who is more beautiful mm-hmm. in speech than the one who says mm-hmm. who calls to Allah تبارك وتعالى According to Allah is the very job of Sayyidina Rasulullah. So it is the, our job, all of us, I mean, as we know and according to according to what we know and according to um, who we know. So that is what the Imam is calling us um, to. Okay. Who is better than Imam Muhammad Sakho? <laughs> Everybody. No. Because one of he is the one of who teach the people, who guide the people. who convert the people in Islam. That's what, uh, because Prophet ﷺ said to Imam Ali, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُمْرِ نَحَمٍ yonent uh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci nit ñi mooy koo xam ne fexe na ba nit jube ci moom nit baaxe ci moom lan la ñuy def fii moom lan lay def fii fexe ba nit jube ci moom nit baaxe ci moom moo tax yonent bi ne woon imaamu Ali na ko giñ naa ne kenn nit ku baaxee ci sa société bi nga bokk rek moo gën àdduna ak li ci biiram kenn nit ku baaxee ci société bi nga bokk moo gën adduna ak li ci biiram kon ki taxaw ci boobu liggéey moom itam ñun ñëpp war nañ cee jàpp bu dëgër a dëgër ba nga xam ne loolu dana mën a dëgër bu baax a baax mbokk yi xam ngeen ne lislaam dafa xemmem loo bu baax a baax li nga xam ne mooy joxe sa alal jaamu yàlla nag jullee nga ca koora nga ca ak azakaak ak yu demee noonu yépp waaye joxe sa alal ñaata yoon la ko yàlla tudd ci alxuraan joxe sa alal ci yoonu yàlla ak lan lay jariñ nit ki bu fekkee joxe na alalam ci yoonu yàlla bokk na ca li aaya li yàlla di wax ne masalul lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ñi nga xam ne dañuy jël seen alal li ñu am te nit ki li mu am lépp mooy li nga xam ne jiital na ko ci téere yiwam muy def ko ngir lu baax yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy dund li seen alal ci yoon yàlla dafa mel ne ka masali habbatin ambatat sab'a sanabil fii kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yasha yàlla nee na kii jël dërëmam joxe fukki dollaram cent dollaram mille dollaram lu man di joxe nee dafa mel ne yow mu jël benn fepp nga def ko ci yoonu yàlla yàlla defal la fepp woowe juróom-ñaar téeméeri fepp kon compte bancaire gi gën a wóor investissement bi gën a wóor ci doomu aadama mooy def sa alal ci yoonu yàlla the best investment is to invest to allah subhanahu wa taala mathalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ka mathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba te yëmut ci loolu mu ne wallahu yudaa'ifu liman yasha loo joxe yàlla mooy jël di la xëpp di la jox di la jox aw yiw ak lu baax ba nga doyal li ñu fi dajale di fa wut ka am bu weesoo liñ ciy lekk ka naan wala liñ ciy sol mu amuñu ci leneen lu ñu amal njariñ li ñu amal njariñ mooy li ñu jiital ci suñu téere di yiw ba bu ëllëgee képp ku ñu joxe sa téere ci sa loxam ndejoor nga kontaan. Masha um, teaching the kids and teaching the Book of Allah. And the Prophet ﷺ the best amongst you are those who learn the Quran and teaches it. And calling people to Allah causes people to be guided. And Sayyidina Rasulullah وسلم, once said to Sayyidina Ali, I swear by Allah that for Allah to guide through you a person is better than the red camels. Mm. And the red, when you say hum, the part when they said humrun na'am in their time, mm. is like our Mercedes, is our you know luxurious flies and plants. And he said, for you to be to, to guide mm. a person to Allah is better than you actually than the dunya and whatever the dunya uh, contains. And he said, he has no doubt that people, many people have converted and have taken shahada in this community. Of course, That's, that's true. In this very masjid, people have, alhamdulillah, accepted in Islam and even, mashallah, um, went beyond that. This very um, uh, sister that were here, was here, Sister Amina, her, her husband is one of those converts, alhamdulillah, to, to, to, to, to Islam, brother, brother Ali. And as uh, uh, brother said about Amina and their family, they are very beautiful people. And he said that Islam, we all know that there are many things that are important in Islam, but one of the most important things that Islam is calling us to is an infaq, spending in the path of Allah Tabaraka wa Ta'ala, because spending is the best worship of wealth. Mm-hmm. And he said that Allah Tabaraka wa Ta'ala in Surah Al-Baqarah is giving us an example of the importance mm-hmm. of spending in the path of Allah. And he says, The example of those who stand in the path of Allah is like a person who just has a piece, a piece of habba. Then in that piece he put it in the earth and Allah wa ta'ala multiplies that habba into 70, it's a 700 uh, manifold. And he said that is only an example. Allah can even multiply it even more. وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ And لِمَنْ يَشَاءُ has no limit. And that's why we all want to invest in this and in that, investment is the investment of the sake of Islam. And he said, from our wealth, we have nothing but what we have eaten or what we have clothed ourselves with or what we have eaten for the sake of Allah. Hmm. Thank you. mbokk yi euh, ni ngeen ko xamee rek Euh, ak ni ñu ko waxee mooy nit ki amul lenn lu may li nga xam ne moom la def ci yoonu yàlla ci alalam moo teyit joxe du tax a ñàkk loolu alxuraan ñu ko wax yàlla moo ko wax joxe du tax a ñàkk teyit lu waay joxe yàlla wuutalal la lu ëpp loola wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yuxlifu lépp lu ngeen joxe ci seen alal yàlla dana leen ko wutaatal benn nga gis ko ci saa si wala mu wuutaatal la ko ci fayee la jëf ji joo xamante ne bii dootu jeex ba mukk alal nag bu ñu xoolee ci li bakkan di nangu nga xam ne bu nit ki toppee bakkanam day defe ne joxe da koy xañ wala joxe lu bari da koy xañ te loolu amut moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne li kulli ummatin fitna wa inna fitnata ummati almaal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na xeet wu nekk am na fitna lu leen yàlla na too sama xeet nag li leen yàlla na too mooy alal nit ñu bëgg alal waaye kon ñu xam ne tey li ñu fi dajale moo di joxe suñu alal te yàlla tax maanaam dimbale lislaam dimbale mbooloo mi nga xam ne ñooy liggéeyal lislaam roye ko ci saxaaba yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ni ñu meloon ci joxe seen alal ci yoon yàlla tàmbaleel ca Ousmane ibnu Affan wala Aboubacar ni Siddiq kenn ku ci nekk gis nañ la mu def ci diine ci waajal ab xare bi lëm boo xamante ni bi la ca war a def yépp moo ko ca def muy Ousmane ibnu Affan nga gis li nga xamante ne bii moom la Aboubacar ni Siddiq def jël alalam jëpp yonent bi eh, sallallahu alayhi wa sallam woote ci xaswa Tabuk mu jël la mu amoon lépp joxe yóbbu ca penc ma ñëw ne ko ba ci ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa bi ne ko ah waaye yow loo bàyyil njaboot ga mu ne ko bàyyil naa leen yàlla kese bàyyee naa leen ak yàlla nga xam ne kon fu diine àgg tey ñooñu ñoo ko fa àggoon nun nag lii moo ci sunu wàll yëkkati suñu alal def ci diine ba lépp lu ñu bëgg yàlla defal ñu ko loolu mooy li nga xamante ni mooy suñu taxawaay. Um, the Imam is telling us that according to Allah subhanahu wa the messenger of Allah in the path of Allah does never decrease the wealth of the person as the Prophet say ma naqasa malun min sadaqa mm-hmm. sadaqa does never ever decrease the wealth of the believer. And Allah wa ta'ala in Surah Saba, Imam says that He said, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Whatever you spend in the path of Allah, Allah will replace it for you. Mm -hmm. So when we are giving for the sake of Allah, actually we're not giving. We are asking. We are, we are getting ready to receive. You know, one of our scholars said, when you are going to see a king who has everything and you have nothing but a piece of chicken and you take that chicken to the king, you're not being generous to him. Actually, you are asking for something. And that's what we do when we give for the sake of Allah. Because giving loan to Allah is asking. And who is asking Allah knows that Allah wa ta'ala is um, ghani, is um, enough wealthy to give. I mean, he is the owner of wells. And the Imam said that the Prophet وسلم, said that every single ummah has fitna. And the fitna of my ummah is wealth. So when we give, we think we are losing. We, because Shaitan is promising us that giving causes poverty. Poverty. Mm. And he said that if we look the Prophet Prophet's generosity and the Sahaba who supported him and supported the cause of Islam and the blessings that Allah Ta'ala put in their self and in their wealth, we will be more than encouraged yeah. to give. For example, Abu Bakr, he said, Sayyidina Abu Bakr anhu, mm-hmm. when the Prophet ﷺ called the Sahaba to spend in the, in the way of Allah, one of the days Sayyidina Umar said, Abu Bakr always overcomes us. But today I have a lot of wealth with me. I'm gonna win him. overcome him. Mm-hmm. He went home and he divided his wealth into two. when he came, he brought it, was so much. The Prophet ﷺ said to him, "What did you leave for your family?" He said, "I left the half for my family." And Abu came. When he came, he brought every single thing he had, even his own clothes. He didn't. He barely had any something to bring, The Prophet ﷺ asked him, What did you leave for your family? He said, Allah wa Rasulah. Mm. I left Allah and the Messenger of Allah for my family. And Sayyidina Umar said, Never I will be compete you again. And Imam Mustafa said that hmm. um, if you look um, the, the, the, case of Sayyidina Uthman in Jayshul Usrati in Tabuk, um, you cannot even give an example or an imagination of that kind of generosity. he, I mean, literally um, uh, mhm. uh, mbokk yi kon ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama day dafa bëgg alal ba day wax maali maali sama alal sama alal lan mooy sa alal amuloo dara lu mooy illa ma akalta ba afnayt li nga lekk mu rees. wa la labista fa ab ablayt ak li nga xam ne sol nga ko mu ràbb ak li nga xamante ne bii euh, saraxe nga ko yool ba des fa ñett yëf yi la la nit ki di doy alal li nga sol mu ràpp li nga lekk mu rees ak li nga jiital ëllëg kon waxtu nekk mbokk yi ñuy fàttaliku lu mel nii dajale nu fi tey kon fi ñuy taxawee jëm ci fundraising bi mooy xam ngeen ni yàlla nee na na ngeen def lu baax ndax kenn ku ne bu ëllëgee sa téereb jëf fees dell ak jëf yu baax kon kenn ku ci nekk ci nun na xam ne bu ëllëgee danañ ko jox téereb jëfam benn ci loxob ndejooram wala ci loxob càmmoñam fa amma man utiya kitaabahu bi yamini fa yaqulu haa muqra'u kitaabi ku ñu jox sa téere ci sa loxob ndejoor nga xam ne yaa ca defoon lu baax yaa ca jiitaloon lu baax ci say jaamu yàlla ci liggéeyal lislaam ku ñu jox sa téere ci sa loxob càmmooñ nga ne yaa laytani lam uta kitaabiya xam ne la yaa ca defutoon lu baax te it bu boobaa ngay jooy nag naan maa ax naa an ni maaliya la ma amoon ci àdduna ndeke jëriñu ma dara la ma ci doon def di kër karal di denc ndeke du ma jëriñ dara xelaka an ni sultaaniya la ma doon bëgg ak la ma doon am ak daraja ja ma doon jaay yëpp ndeke duma jariñ dara bu ma yëgoon def ko ci yoonu yàlla moo tax yàlla ne joxe leen seen alal balaa bi sa ñëw boo xamante ne bii kat rëccu moo fay sës waaye def lu baax mënatu faa am te ku bay dem dootoo dellu si kon mbokk yi wa maa anfaqtu min shay'in fa huwa yuxlifu kenn ku nekk tàmbalee ci junni ba juróomi téeméer ba téeméer lu waaye am na ñëw andi ci taabal ji ñu boole def ci jataay bi eh, eh, machine u crédit carte yaa ngi fi ak yeneen yi jigéen ñi ku am xaalis ku am or ku am carte na ko indi ñu def ci yoonu yàlla te yàlla rek tax ñi ngi woo ñëpp nag bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw lu waaye am na ko indi jàngkat yi macha allah ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax. macha allah macha allah. mbokki jullit yi wa maa anfaqtu min shay'in fa huwa yuxlifu fax yunfax lakum dundule leen joxe leen seen alal yàlla jox leen. góor ñi bisimilah. jigéen ñi moom naka jekk xam naa ne moom ñu ngi yegg li ñu yor. ñi ngi koy dajale leen di. so briefly I'm going to translate that and leave Imam because most of the people here speaking. ah jërëjëf Adja Fatou Diagne um, Gambi. raising foreign alhamdulillah but we want to do justice to our beloved English speakers. That's why we are translating and himself he could translate but he's <laughs> you know, okay. okay. Please help Allah, Allah will help you. Okay.